Cheikhu wa Cheikhu Ahmadu Tijaan maam ya wër na na ca ma seyxi yàlla ko may may maam yaa wa seyxu ahmadu tijaan mayaaya war na jareya xutul wujoodi fa seyxi yàlla ko may may maam yaa wa seyxu ahmadu tijaan mayaaya war watoof ko mook dëkkandoom yaa wa Seexu Ahmadu Tijaan baram yëwën na cëreya faman yu laazim quddi watoof ko mook dëkkandoom yaa wa Seexu Ahmadu Tijaan baram yëwën na cëreya laa tajaroo naa si jëkkante leen jëm ca yoon yaa ko Seexu Ahmadu Tijaan bër nga wër na ca réew yaa laa tajjaroo yaa naa si jëkkante leen jëm ca yoon yaa naa si jëkkante leen jëm ca yoon yaa wa Seexu Ahmadu Tijaan ba yëwal na tëreya man kaana yadxulu fiya mu mucc moos ak ñooñam yaa ta mucc moos ak ñooñam yaa ma Seexu Ahmadu Tijaan ma yowal ma tereya damaanatun min rasulin mayam ga moom moo di المقسط العظيم يا الله يا الله يا أول آخر الكريم ظاهر يا رقيب باطل يا حسيب يا الله محيط يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عفو يا

ربي الله asalaamaaleykum noo ngi fab nuyoo bu sell bu nu tibbee ci sunu xol ak jullit yi fi nekk yépp ak mbooleem fu nit jóge ci biir Sénégal ak dawoor Sénégal nuyoo boobu noo koy teg ci loxo ki xam ni mbir mi ba nu koy sos baayam yu baax ya di alxaaji Abdul Aziz di Ceerno Muntaga noonu mbir mi ku ci woolu nunu kenn rek la ci woolu mooy kii toog di sunu sëriñ di sunu soppe di sunu xarit léemi yëpp wekk ko ndax personnalité ak dignité ak taxawu kër maamam Cheikh Seydi El Hadji Malick muy kan mu Seydi Abdoul si ay Amine si mbooleem ku fi ne koo jox loxo ak koo joxul loxo wax na ma ni naa la nuyu ziar la gërëm la ci yéen bu diis bii xam ni kenn yenu la yenu la ko ku dul yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Sidi El Hadj ak sa baay Sidi Boubacar si xalifa bu tedd ba radiallahu taala anhu sa mag ji sa xarit ji sa soppe bi la mag ji defoon moom itam mu renouveler ko mooy kan mooy sunu mag sunu xarit sunu soppe di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum kon nag si noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziar ci sama loxo bii nuyoo bu sell nu jox la ko si ak di nuyu nag ñi xam ni sunuy gàll nañu Ahmed Tawfiq mii xam mu nga jóge ci kan mu nga jóge ca le roi Mohammed VI ànd ak une forte délégation wëni fat wëni du Maroc ñoom ñëpp ñëw ci Seydi Abdoul Aziz Al Amin pour tap jàppale ko ci bés bu mag bii sa doom sa xarit sa soppe moom itam yónnee na fi ay ndaw yónnee na ko yu wax Mansour Sy ministre du di sa turandoo baay Alhaji Mansour ak kan ak Alioune Sadi mi xam ni moom itam ministre la ñëpp xam ko ak sa doom Alioune Sarr di ministre du commerce di sa doom ak kan ak Moustapha Diop moom itam mooy ministre bi avec financement à travers toutes les femmes du Sénégal di sa doom di sa xarit ndax moom mu ngi jóge ci sa mbokk mu baax ma di mbokkam di Serigne Cheikh Fatma ak kan ak Serigne Serigne Mbacke Sakho. mi xam ni conseiller la moom itam amee affaire religieuse auprès du président de la république Macky ak sa doom Abdoulaye Badji moom itam conseiller technique la auprès du ministre auprès du président de la république ñoom ñëpp président dina ñëw ak sa doomu bopp Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Ndoye moom itam Alioune Badara Diop di sa doom di préfet ak commissaire Bodian ñoom ñëpp président de la république moo leen jox instruction ñu neen ca sama baay sama xarit sama soppe Seydi Abdoul Al Amin ngeen ma fa ñoom ñëpp si noo ngi sa gannaaw waa waa Sénégal sous région bi yëpp Seydi Abdoul Aziz ñoom ñëpp ñëw nañu woote ba nga woote woon pour bés bi jagleel ko ki xam ni sa maam sa baay ak ñëpp moom la gëm yaakaar ko di Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu woote ba ñëpp dégg nañu ko ndax te jii mën noonu la wax ni ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw bu doon daaw ren a dàq ren moo dàq waaye nag ñu tuddee ko sa baay sa xarit sa soppe mooy kan mooy caatu Cheikh Seydi El Hadji Malick bu góor ba di kan di Alaaji Habib di kan moo jur mu lay mii moom sa Sidi Boubacar si xalifa bu tedd ba radiyallahu taala anhu daf ko soppoon ba 99 luy ceer fu Sidi Boubacar dëkkoon fu la alaaji Habib dëkkoon lépp Sidi Boubacar su waxee ba pare ni dem leen ci sama rakk ju baax ji alaaji Habib tey jii nag bés bii moom la ko tuddee di nuyu sama doom sama xarit sama soppe fonk ma lool ndax ay waajuram di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ibnu Seydi Mouhamadou Mansour mu ngi nii toog moom itam ànd ak rakkam Seydou Mouhamadou Moustapha ak rakkam yëpp mën nu lim ñëpp si waaye daal woote bi daal ah Seydou Abdoulaye Sy Al Amine xoolal sa bët xool gauche xool droite xool sa kanam waaye si maanaam ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu soo wootee ñëpp dégg nañu ko kon nag si du ma def du la jox sa xarit bii sa soppe bii di Malick Fall mi xam ni. moo remplacé mag ñi yore woon yëfi ñoom ñëpp ñoo ngi fi sa doom a ngay Papa Diagne di sëñ Dakar moom itam mu nga nee toog den ak sa doom dañ Alhaji Bassirou Diagne ak Mouhamed si Alhaji Abdoul ak kilifa yëpp Malick bisimilah. ah si Malick xanaa baamu rek mu mënul taal. soxna bu baax bi di ministre moom itam mu ngi ci délégation président bi ko ànd nag Seydou Mouhamadou Mansour dem ca Seydou Abdoul Aziz Al Amine bisimilah. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din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 muy Daaru Naaji sëriñ bi ma ngi lay nuyu nga ziar ci turu coordination TIYAT daaw ma na daaw ma wax yaa jara wax yaa jara wax yaa tax ñuy wax dinaa wax maa ngi lay baax ñu nuyu délégation gouvernement bi Serigne Mansour Sy ak ministre mu ànd ñu nuyu le ministre Habous affaires islamiques Ahmed Toufi ànd ak son ànd ak l'ambassadeur du Maroc à Dakar Barada di nuyu Bég Diouri le chef de cabinet du ministre des affaires islamiques di nuyu toute la délégation marocaine ku gis délégation bii quinze personnes lañu ngeen xam ne Maroc fonk na Sénégal quinze personnes ñu ko Mansour waxee boo wootee lu wan du toll nii yaa woote ma xam toll nii daana sa bari ñu ne bii nag sa kàddu ji yow yaa fonk Soxna Tijaani Cherif yow yaa wax ne journée yi di journée Seydi Hadji Malick journée sa baay Serigne Babacar Sy journée Abdel journée Cheikh Ahmed Tidiane Cherif wan na kuy taaliba Tidiane war nga teew fii tey bo du ko Mansour waxe gauche droite xaw ma à yaa woote boo woote woon mel nii Sénégal ba Gambie ba Nouakchott kenn desul gaa yi ñëw na Dagana ñëw na Richard ñëw na Xuma ñëw na Ndar ñëw na ah ñëw na sàkkal ngi fi Kébémer ngi fi ndànd ngi fi géewul ñëw na Thiès ñëw na Kër Madara ñëw na Xombal ñëw na Bambey ñëw na Touba ñëw na Kaolack ñëw na Touba nga ne daari baa nga ne ne Kaolack ñëw na fatik ñëw na Kumbantu ñëw na Tambacounda ñëw na Tambacounda te ñu ne mësuñu journée yi sa appel la ñu dégg ma tax ñëw kon sëriñ jërëjëf yow yaa neex a àndal kii daa ko sos masuloo xam sax coordination bi lu ñu am si xaalis wala lu kii sa yoon na ko si nan na baax rek yow sa ginnaaw amul xaaxam yow yaa baax li mu koy dëggal moo de ñii toog marocain yi toog nii si moom mi lañu yaakaar pour ma defal tijaani si Afrique de l'Ouest yëpp ku ma maam dara du dox dañu dem congrès Tijaaniya euh, Fès ñu ne tijaan yi cent cinq millions la yan caam yaa nga fi amul benn muqaddam bu teew mais bu ñëpp teew moom la woo moom la woo de ba ñëpp ñett ñetti ma fa nekk yow ministre mag ki mag si si borom xam ko fa nekkoon ñu ne Sénégal loolu jag na yàlla sa maam Alaaji Malick moo ko liggéey dañ naan kuy Alaaji Malick waaye kii fu mu jàng mu ne génnul Tiwaawan dañ ma ko laaj fo ne waa Côte d'Ivoire waa waa Bamako waa Gambie kii génnul génnul ah, Tiwaawan ñu pare congrès bi tàkkusaan war a dem janvier ba julli ci tàkkusaan Sa Majesté le roi garé deux cent cinquante cinq bus ñu dugg si moom ñu jox ko Mercedes ba ñu demee janvier ba bara julli tàkkusaan ñu ne ko yow la yaa jiite kuy wax yow yaa bara jëkk a wax si jagle yàlla nga am yow yàlla la defar sa maam ànd si yow yaa baax yaa jara àndal ku ànd ak yow jub ku ànd yow nekk nit ku ànd yow nekk jullit ku ànd yow nekk taalibe seex mën naa wax ne siw fii timis mais comme dañu ne man daaw ma wax man ne tey naa wax man du ne si man ginnaaw yàlla yent ki yaa ko yent bi gëwuma kenn ku dul yow yaay sama wasi yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg yàlla yàlla dolli sa maxam yàlla yàlla may fan lu gudd yàlla yàlla dolli la wër yaay sag bi de du Sénégal de du Sénégal de Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Asie Amérique Europe yow la yow nga dendal xam ni yow la ay dama tey dama ba gant sama xol dafa fees 34 ans ma suma waxee nii li ñu gis yoon ak ñooñu moo tax ñu wax kon sëñ bi jërëjëf jërëjëf ma gàttal yem foofu rek kii xam ni baayam mu ngi ko tuddee magam ju baax ci alxaaji Abdul Aziz di Mulaay Abdul Aziz moom ci boppam di doomu alxaaji Habib ñu tudde baayam bés bii te ñépp xamoon baayam ni meloon ci lislaam baayam ni meloon ci dërëq Cheikh Ahmed Tidiane baayam ni mu fonk woon Cheikh Seydi El Hadji Malick ak nu jóge Cheikh Seydi El Hadji Malick fa boon magam ja xaritam ba soppeem ba Sidi Boubacar teg ko ci kaw doomee baay mu laaj bismillah sa mag ne nga sànni ay kàddu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alqaa'ili fi muhkami tanziilihi wasbir nafsaka ma'a allaziina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal 'ashiyyi yuriiduuna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الجسيم ورضي الله عنه صاحب الختم المحمد الرباني تاج العارفين وإمام المقربين مولانا أبي العباس الحسن التجاني الشريف وكل من لهم كما من الذرية والأصحاب أهل القرب والتباني وبعض assalaamu wa rahma wal baraka alayna wa alaykum ajmain allahumma ij'al iftitaaha haadihi al-hafla iftitaahan mubaarakan وارزقنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يضاع ولا يدام tabarakallahu di jéggalu ci kàddu yi comme ni ko xaaj Mansour waxee ñun baaxoo wuñu fu suñu kilifa toogee ñu naan dañuy yëkkati kàddu waaye dafa ne ndigal la ñuy jëfee ma jiital nuyoo yi ci sang bu tedd bi toog nga xamante ni moo fi wuutu usra malikiya ak tijaaniya yëpp di moolana Cheikh Alhaaj Abdul Aziz Sami di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér la ñu koy sagoo fu ñuy toll am na yoon bu ñu yi ñu am dox ca moom ba ñu toogee ma ne sëriñ bi amoon ñaar wala ñett ñu mel ni yow fa tabarakallahu kon ñëpp dinañ tëdd nelaw ndax taxawaayam ci diine ci taxawaayam ci tariixa bi ci kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu may wax nag dama wuutu suñu mag yëpp fa tabarakallahu ndax la suñu bàyyi bu baax ba waxoon sëriñ Babacar Sy radiyallahu diine ci tariqa bi njaboot yi ku ci ni duut baaraam man sëñ Babacar man ak sa bopp tànk yooyu nag boobu ba léegi lu ñuy tuuti tuuti dañoo gimmi fekk ko ci kon nag du ñuy def lu di ko ñaanal yàlla yàlla ko suñu kanam lool lool lool lool tabaarakallaahu ànd ak wér wér ak njaboot bu boobaa di ko ñaanal xalifa bi bi Mawlana Cheikh Ahmada Tijani al Maktoum tabarakallahu ak seen rakk yi toog seen gannaaw yëpp di nuyu kilifa fi teew yëpp fa tabarakallahu di ko jaarale ci loxo yu tedd yi moom moo ñu gën a jotal bu waxee waaye di nuyu fa tabarakallahu président yi di ko ndokkee ci bés bi nga xamante ni da ngeen ko jël dippee ko comme ni ko xaaj Mansour Mbaye waxee tabarakallah suñu wajur bu baax ba radiyallahu anhu moo woon Cheikh Hadj Mouhamadul Habib Sy fa tabarakallah kon xam naa du ma waaw ndax moom bu waxee ñëpp wax nañ maa ngi jéggalu waa sëriñ ci kàddu yi nga xamante ne sax yëkkati naa fa tabarakallah Hadj Mansour kon mi ngi ko waral wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ bi sa xarit sa soppe sa président de la république El Hadji Macky Sall moo fi yéen délégation bii ma liggéey muy délégation boo xam ne daf koo tànnal boppam ndaxte ndénkaane dafa diis te ñëpp xam ne ne ci kër gi la fii këram la yàgg na fee ñëw soxnaam yàgg na fee ñëw taalibe di jot minute bi jaxasoo ak taalibe nee boo gisee mu def loolu dafa bëgg rek comme yàlla dafa tey mu am gan amoon ko daaw muy monsieur le ministre Pierre Abdou et des affaires religieuses dafa bëgg mu dalal ko ci Sénégal mu xam ne gouvernement yëpp dalal nañ ndax loolu mooy méngoo ak li nga xam ne moo nekk ci diggante son sa majesté le roi Mohamed VI ak président de la République Macky Sall daal ko wax ne ko lii muy def gis nga ko nii muy jàppale waa Saraxel gis nga ko ba mu ne boo gisee mu wër ne délégation bi dafa bëgg Saraxel Tijaan yëpp jiital ci coordination des Tijaan ak seen président nee naa wax dëgg yàlla li mu gis mooy képp koo xam ne ci jàll la ci li ngay mooy tàggat la ci baax tàggat la nga xam ne bis bu nekk yaa ngi gëstu pour gën a am xam-xam bu bëri li nga xam ne yaa ko def loolu nag ku koy def da ngay dëgëral réew te lu jàpp ne dëgëral réew moom nga ko def kon nag tey bu sargal ci jaaru Sénégal yëpp ak ci àddina bi yëpp ñetteel bi nag dafa bëgg tey comme monsieur le ministre mi ngi fi jóge naa ñëw toog ak délégation am solo kilifa diine ak kilifa aada ak mu xam ne yëpp toog mu ne dafa bëgg sargal xaritam soppeem Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ci jàppale bi ñu koy jàppale ci ñaanal ñu koy ñaanal ci yombalal bi ñu koy indi ci xelam bi ñu koy taxawoo ndax ne loolu bokk na ci yu bëri li tax mu mën a dal ba mën a sumb ay projet yu mag jëmale ko ci dëkk yi nga xam ne fa la kër diine yi nekk lii nga xam na ko ci waaw tàmbale na te mi ngi ñaan yàlla mu yeggale ko gàmm bu ubbi waa yeneen ci sant yu am ci yoon kon nag bis bii day gis boo xam ne rek président dafa woon ñëw fi ndax ni ma ko waxalee boppam nee na yëpp nit mooy waral sant ko parce boo ko santee mooy waral doole doole boobu nag moo taxoon ñu tàllal suñu loxo di ko président wala di bëgg pour que sëñ bi day ñaanal. waa Sénégal yëpp ñaanal askan bi yëpp ñaanal gouvernement yàlla nañu nga ñaanal ko moom ci boppam it yàlla man yàlla maa ngi wër ak wërale moom it mu ko dafay ñaanal wër ak wërale ak kaw loolu mooy li nga xam ne président de la république waxoon nañu ko mais nag lépp lu ñu mën a def xam ne daal xel ci jaar ni ñoo amuñu kenn ku dul seen xale kon lépp li nga xam ne yëkkati leen ko mu lu yiw teg leen ko ci loxo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mu tegal ko ko ci Serigne loxo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalifa général yi Tidiane maa ngi leen di gërëm leen ñëpp di leen sant wasalaam jërë ngeen jëf. ma di sëkk ndaw la transmission. a été belle ca loolu it la la président Macky wax yaakaar na ko lool bëgg na ko lool sopp na ko lool mu Seydi Abdou Aziz Al Amine léegi nag maa ngi jox ki xam ni mooy Ahmed Tawfiq am yoon na ak délégation bi moom la Mohamed Siis ak une forte délégation waaw lu tax délégation bi ñëw du kenn kii toog rek a tax foog bu Mouhamed Ciss foog Seydou Abdou Aziz Al Amine ak délégation ana Mbaye ñan Mbaye ah Babacar place ba Mbërëm Diop doon taxaw Serigne Abdou Samb si ci dara moo tax Mbaye ñan ñu taxaw fii. Boucar Boucar Imam Boucar Niang mooy ki sëriñ bi waxoon ni te ñëpp toog ci saxaabaam yépp ak waa ak ak ñoñam ak waa këram nee na gannaaw loolu mu ngi nuyu son excellence ministre du travail monsieur Mansour Sy ak membre délégation bi mu ànd ak lépp ñu teew fii ngir représenter son excellence Monsieur Macky Sall mu ngi nuyu fadilata Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy mi nga xam ne moo teew fii ci jotaay bi di kilifaab jotaay bi teewal di porte-parole famille Tijaniya bu kër Sidi Hadj Malick Sy teewal fii tamit mbooleem mbokki sëriñ mbokki muqaddam yeeg xalifa tijaan nekk ci réew mi nee na rawatina nag mbokkam ma magam Cheikh Ahmed Tijani si El Maktoum nee na mu ngi koy nuyu bu baax nuyoo bu dëppoo ak maqaamam فضيلة الشيخ عبد العزيز الأمين الناطق الرسمي باسم الخليفة العام للطريقة التجانية بالسنغال صاحب الفضيلة الشيخ أحمد التجاني السي فضيلة رئيس تنسيقية الدوائر التجانية بدكار حضرات السيدات والسادة nee na gannaaw bu mu nuyoo sëriñ bi Cheikh Abdoul Aziz mi nga xam ne wax naa ko mooy porte parole famille si di toogal fi mbooleem xalif yi mu ngi nuyu tamit mbooleem boroom xam-xam yi ci jotaay bi ak sang yi ak kilifa yi bi kaamil sururi wa baadir bil i'tijaaj احضر مرة أخرى جمعكم المبارك هذا بأمر من أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي تفضل بموافقته الكريمة على منح رعايته السامية لهذا الملتقى في دورته الرابعة والثلاثين كما تفضل حفظه الله برعايته لدوراته السابقة nee na mu ngi am mbégte mu mat di teew fii ci ndaje mu rëy mii ci ndigalu Sa Majesté le roi Mohammed VI roi du mi nga xam ne ci ndigalam la jotaay bi taxawee sosu mu mus di ci dugal loxoom ak taxawaayam ba bésu tey jiini nii musta wuute benn édition nee na moom la ñëw di représenté fii di indil mbooloo mi yépp nuyoom وإنني أبلغكم جميعا رضا وعطف جلالته وعرفانه لوفائكم وثباتكم على القيم التي تلقيتموها عن أسلافكم الصالحين هذه القيم التي جمعتكم بالمملكة المغربية وعلى رأسها أمير المؤمنين نصر الله منذ عقود وقرون ماضية mu ne mu ngi jotal mbooloo mi mbégteem sa majesté le roi Mohammed VI ak ngërmandeem ak kontaanteem ci taxawaayu senegaal ci diine ji rawatina taxawaayu kilifa yii di doxal diine ji ak tariqa bi ak seen yitte bu kawe ci liggéey boobule te loolu lépp ñu doon ko ci maam yu baax yi ak baay yu baax yi yi nga xam ne ñoo fi doon taxawal diine di samp euh, jikko yu rafet ak principe bi lislaam ci dëkk bi ak ci jullit yi ak ci àddina bi lépp nee na loola moo li mooy li takke Maroc ak Sénégal muy relation bu yàgg ba yegg si tey ci loxo amirul muminin Mawlana Muhammadin Sadis mu ne mu ngi ñaan yàlla mu dolli ndimbalam yàlla di ndimbalam fu mu toll nee na nag relation yi Maroc ak senegal relation yu yàgg la yoo xam ne am na ay décennies yu bëri ak siècle muy ñaan yàlla yàlla sàmm relation boobu ba faw للتواصل والتراحم والالتحام والتعاون والانسجام إلا واغتنمناها اغتنمناها لتقوية القيم النبيلة والمبادئ الثابتة والعقائد الراسخة التي تجمعنا وإياكم ماضين معكم يدا في يد على درب التنمية الروحية والأخلاقية الكفيلة بخير diini mu ne ñoo ngi nii di dajeewaat di yeesal jokkoo gi nga xam ne musta dëñ di jokkale leen jokkale ñoom waa Maroc ak waa Sénégal kilifa yi autorités yi ca Maroc ak autorités yi Sénégal ak kilifa diine yi ci Maroc ak kilifa diine yi ci Sénégal te nee na boobu jokkoo ak boobu dimbalante ak boobu ànd lépp li ko tax a jóg mooy sàmm njàngaley lislaam yu rafet yi ak principam yu baax yi ak pas-pas yu rafet yi nga xam ne nii dafa dëgër lool te lislaam indi ko di ko jàngale nee na nag ñu ngi continuer di tàllal seen loxo ñoom kilifa yi ak waa Sénégal pour ñu continuer ànd ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy liggéey ngir développer jikko yu rafet yi ak jikko ak euh, njàngale yi nga xam ne nii moom la suñu kilifa yu baax yi doon jàngale jëlee ko ci yonent bi salaa sallam te nekk jàngale yoo xam ne nii dafay defar suñu tey ak suñu ëllëg suñu diine ak suñu alaaxira ولقد استمعنا إلى السيد الوزير ممثل أنتم ونحن بالانتماء إلى هذا الدين الانتماء إلى قيمه التي تحفظنا دنيا وأخرى من كل زيغ وانحراف mu ne dégg na léegi son excellence ministre Habib Mansour Sy mi fi teewal euh, son excellence monsieur monsieur le président Macky Sall mu ne dëgg dëgg ñun ñu am chance lañ bi ñu yàlla tànnalee diine ji di lislaam muy diine joo xam ne njàngaleem lépp luy jur jàmm la ak jikko yu rafet ak nekkin wu rafet ci nit ñi ci diggante nit ñi mu ne loolu dégg na am ministre bi wax ko muy loo xam ne nii lu dëggu la nee na mu ngi ñaan yàlla yàlla xamal ñu loolu chance boobu mu ñu defal bañ continuer bu baax di gën a xam li ñu am ñu koy gën a garder di ko gën a toppatoo di ko gën a sàmm إن التصوف يقوم على أمر أساسي وهو محاسبة التربية على محاسبة النفس mu ne tasawuf muy soufisme dafa taxaw ci principe yu am solo te dara jiituwu ca waxtu bu nekk ngay seet sa bakkan di ko xisaab di xisaab sa bakkan foo toll di ko contrôler ndax bakkan bi mooy li jara a bu baaxee rek maanaam lépp baax dana tasawuf nag foofu lay teg loxoom فلن نتصور مجتمعا تربى على محاسبة النفس كل منا فيه يحاسب نفسه كم هي ستكون سعادته وكم ستكون رخيصة فاتورة تسييره وتدبيره بخلاف ما نشاهده اليوم من تفاقم الفاتورات بسبب naqsin fi tarbiyati ala muhasabati nafs mu ne nañu bokk ñun ñëpp bokk yi imaginer société boo xam ne ña ko dëkkee ñëpp dañuy contrôler seen bakkan ba du leen dugal ci jéyee mu ne booba société dina dal jàmm dana ko gunge booba société mu ne bilan yi ñuy gis léegi ci àddina bi mu metti lool diis lool bu fekkoon ne société yépp duñoo mel noonu tasawuf bëgg mu mel nee na du dem mbir mi du demee noonu mukk waaye li indi problème bi yépp mooy nit ñi duñoo ñoo société yépp du ñoo doxalu tasawuf tasawuf rekk daal mooy solution bi mooy li mën a indi ak dal ci nit ci àddina bi lépp inna ta'zim ash-shuyukh fi madrasati at-tasawuf innama huwa ta'zim lil-qiyam allati yahmilunaha وإعلاء هذه القيم هؤلاء الشيوخ الذين يربون الناس على التوحيد الحق وهو أن يتحلوا بالتوحيد في داخل أنفسهم وهذا التوحيد هو الذي يزكي ويضمن محاسبة حسنته من أنفسهم وهو الضمانة الوحيدة للأنواع الشرك كلها. mu ne màggal gi ñuy màggal suñu kilifa diine yi. suñu sëriñ su baax si deen ormal du seeni jëmm rekk a tax waaye li ñu incarné la ak li ñu représenté ak jikko yi ñi nga xam ne moom lañu jikkoo loolu la ñuy màggal ci ñoom loolu lañuy topp ci ñoom te mu ne loolu nag mooy li nga xam ne nii moo mën a baaxal suñu mbir ndax ku amul kilifa doo xam mukk fooy aw doo xam fooy teg sa tànk